ñoom mu jox la preuve xol la ñuy waxee xol Aïssatou Diop Fall day ñàkk tey xam comme mbaam xuux bu ko fële Ousmane Sonko xol bi nga dagg xol bi nga dagg jox leen ko ndox mu naan tegal leen ko galaas ci dënd bi Aïssata jëlal teg ko sa dënd bi sa bi yëpp dagg na oxo Aïssata ah sa yaay sax mënoo koo convaincre jëlal ndox mu sedd naan ko naanal jus de fruit naanal jus ak fruit nga yëy fruit hmm? naan ndox mu sedd Aïssatu xol bi dal dalal toogal toogal dal dal demal doxati sa yaram bi yëpp doxat la demal doxati Aïssatou Diop Fall demal doxati pour peer tuuti sa yaram bi yëpp air la boo doxatee air bi génn doxatal tuuti ah doxat bi nga nekk nga war a bàyyi Aïssatou xoolal Aïssatou dafa log doxat Aïssatou bàyyi bàyyi ko mu wàcc bàyyi doxat bi mu ne nga tuuti sa yëpp doxat la yëpp peer la bàyyi ko mu mu wàcc bàyyi mu maase bàyyi mu air bi dina génn ci laxi nga mën a nekk nit tuuti wàcceel air bi doxatal tuuti mu génn sa yaram yëpp air la moo tax ñàkk mais doo leen xool di ree nag mu génn ay sot Diouf Fall mu génn hmm, air bi génn sa yaram yëpp air la hmm, sa yaay sax mënoo koo convaincre pare ngeen ay sot <laughs> Diouf <laughs>